Euh, le camp présidentiel ñu au nom de la rupture war a xam ni en dehors le fait que mu nekk le président de parti il est aussi le premier ministre ñu gën a gën a ñoŋal li nga xam ni seen sécurité la mais su fekkee ni sax am na ay ses propres hommes mais aussi les sécurités de la présidence comment euh, le pré le premier ministre peut faire pour en bénéficier pour ne pas dire les autres candidats. Euh, euh, tout à fait avant ñuy wax sur les autres candidats dañuy wax ci premier ministre parce que kenn mënul fexe ba tey ba ba ba en tout cas ba muy gëj a nekk premier ministre kenn mënul fexe ba Ousmane Sonko du nekk premier ministre il est le premier ministre du Sénégal 24 heures sur 24 mu nekk ci campagne électorale mu bañ a nekk ci campagne électorale dafa am la nga xam ne charte réew mi moo ko teg ci ndoddom moom du moom moo ko moo ko ut du moom moo koy demander c'est une obligation de la République vis-à-vis de lui comme les autres Euh, responsable d'institution muy président de la république président assemblée nationale wala lii ak lii moom dafa am la nga xam ne mooy chape de plomb bi nga xam ne li naan sa sécurité personnelle kooku état du Sénégal moo ko gàddu soo ko neex na ko naqari na ko fu muy dem matin midi soir il est obligé de s'acco de de de de s'accoler avec cette sécurité kenn mënu ci dara. Mhm. donc loolu il faut déjà un euh, surtout. Euh, moom quand il. mënuñu dissocier Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko. non non non euh, c'est pas possible. c'est pas possible surtout que moom buy discours boobu bu koy wax ay soxlawuma sécurité état non non non non non c'est c'est c'est pas c'est pas c'est possible. mënul nekk loolu du moom moo ko demandé. c'est la constitution du Sénégal moo organisé comment on fait moo organisé sa sécurité comme sécurité président donc loolu il n'a pas un mot à dire. Euh, foofu nag ci par rapport li ngay wax effectivement am na la nga xam ne bon mun nañ ko jàppee un peu euh, du ma ne errement mais jàpp naa ne que lu mel ni euh, un premier ministre parce que da ngay xool président de la république qui est une institution suy dem am campagne malgré que chef de parti la di dem campagne mais sa sécurité continue d'être à ses côtés. Mm-hmm. waaw sa sécurité continue daal peut-être que leneen yeneen attribut république bi la dul bénéficier wu mais sa sécurité ba keroog muy wàcc c'est lui le président de la république donc dañ ko war a assurer une sécurité pu euh, une sécurité très très très, forte mais man dama jàpp ni que euh, errements yi nga xam ne moom la ñu gis euh, je crois que quelque part on n'a pas fait une évaluation des risques. Mmh. sur les différents candidats muy Ousmane Sonko. Euh, muy euh, Amadou Ba muy consor parce que tamit dañu nekk ci campagne c'est vrai que au sortir de ces trois dernières années ah violence fi amoon la logique logique simple la logique simple moo doon non bi yoon on allait vers une campagne bi nga xam ne du am benn problème parce que sénégalais yi dund nañu li nga xam ne ci wàllu violence ci wàllu métit am na li nga xam ne sénégalais yi ñoom seen bopp ñoo koy mbañ ñoo koy extérioriser maanaam buggatuñ ko gis bëggatuñ ko dégg rax ci doole nag homme politique yi ñoom seen bopp nga xam ne ils ont ils ont été les premières victimes. ñoom seen bopp daañu fexe ba nga xam ne euh, poser le débat poser euh, euh, poser. une situation wan Sénégalais yi ne que on peut faire de la politique sans violence. mais pourquoi campagne législative bi violence bu ci nemmee ko d'habitude ci présidentielle lañ ko bëggoon def wala comme na ko euh, Père Goumbala waxee enjeu bi mooy au coup de juste bi nga xam ne wax nañ ne waa Pastef bu ñu amee majorité dañ ko fiy teg wala da nga xam ni eh, bon ñu quitter pouvoir bi c'est tellement frais que ils sont obligés de se protéger aussi à leur manière. tout à fait euh, li mu wax dafa am dafa am solo c'est-à-dire que tey enjeu yi ñoo bëri. boo ko xoolee y a beaucoup de conflits personnels des conflits de personnes soo xoolee les différents euh, protagonistes yi nga xam ne ñoo engagé wu. blessure bi moo wéregul ba léegi moo wéregul moo wéregul ñu ci bëri tey euh, neewuñu di def de la politique. Mm-hmm. comme cela se faisait normalement non non j'ai un problème personnel ak doyen Goumbala. ndax yaa ngi jàkkaarloog say bureau amagul sanction. ñoom yi ñëwaat di bëgg a réclamer dara donc ya ya yooyu yooyu noonu moo nekk tey jii jox campagne bi euh, ce ce cette de violence là. Mhm. maanaam euh, les gens se disent. et c'est ça qui trompe beaucoup de Sénégalais. exactement campagne électorale bu jotee lu la neex dafa lu la neex wala du mujj fenn non c'est pas vrai. <laughs> loo def lu yoonuwul wala nga wax lu yoonuwul bu ñu la daree topp bu ñu la toppee topp donc en fait yooyu discours yooyu moo tax ba tey jii ñu ci bëri dañ ciy profito euh, jote naa woon démb ak Khady Sylla ok euh, dana jaar sama buntu kër xaama activer ay nit ñu toj otom wala ñu saaga ko insi de suite c'est c'est c'est justement ça qu'il faut bannir dans ce pays là mooy cette politique extrêmement violente doyen mu ngi koy wax Sénégal politique dafa mus a violent mm-hmm. mais quand dama ne expérience bi ñu dund 2021 2022 2023 ba 2024. traumatisme boobu nga xam ne dañagul ci bopp nit ñi. je crois que dañu waroon fexe ba nga xam ne campagne bi dafa waroon nekk une campagne de débat d'idées une campagne programmatique. doyen mm-hmm. Gumala bu ñëwee wax comme ni mu ko waxee sànq. yow nga dem beneen télé dindi ko fa. et justement sax violence moo nëbb carrément li nga xam ne mooy débat yi nit ñi sax du ñu déglu débat yi mais lu ñuy déglu kii attaqué nañu cortège am kii répliqué na moom la gën a déglu dégg sax que ay programme programme kenn waxatu ko loolu nekk na benn facteur euh, de de de violence deuxième facteur bi euh, c'est là où je parle de l'État euh, mooy bu weesoo évaluation yi nga xam ne nañu waroon def sur les risques potentiels mais waroon nañu également état Euh, de par sa euh, doole bi mu am mooy détenteur de la violence euh, légitime détenteur de la puissance publique état moo waroon fexe na daal na nag léegi écoute c'est très simple doyen Goumala voici tel service bi nga xam ne nous état du Sénégal on le mais à votre disposition voici les sociétés privées de sécurité agréées au Sénégal mu ngi nii da ngeen ciy tànn ku ci loolu nag mooy que munoo def campagne comme ni ngeen nañ leen di woowee ngeen di tànn seen bulletin tànn seen couleur lii tànn seen couleur mais on met au défi parce que tamit dafa am li nga xam ne bu weesoo yow candidat bi say militant y a d'autres sénégalais comme Khady Sylla bi nga xam ne politikul campagne ul elle vaque à ses occupations. mais tey yow dérapage yi nga xam ne yow say nit ak ñeneen nit ñu ngi koy indi dana ko tere moom mu liggéey dana ko tere mu dem dafi la donc cette gestion quotidienne les dégâts collatéraux donc cette gestion quotidienne de la sécurité publique kooku daf état waru ci wàcc benn yoon waru ci déroger benn yoon parce que boo bàyyee homme politique yi je vais pas parler de politicien devant vous je parle parce que j'ai dit que vous êtes un homme politique <laughs> voilà boo bàyyee homme politique yi ñoom ñu livré wu ci yenn yi day jur yenn yenn yenn excès yi mhm. parce que da ngay nekk ak benn foule bi nga xam ne c'est une foule bi nga xam ne yow mënoo ko maîtriser xamoo qui est dedans xamoo kii ne pas dedans yow daal ay nit topp nañ la xamoo ndax kii dafa ñëw pour soutenir la xamoo ndax kii dafa ñëw pour jaxasel ak xadisi la wala pour jaxasel ak euh, euh, saal mu xamoo donc loolu yëpp il faut que mu am au préalable une prévention ñu xam ni que Père Goumbala buy jaar fii Liberté 6 y a un risque que Saliou Bey attaqué ko ñu jël les devants ainsi de suite ainsi de moo tax les déclarations préalables yi nga xam ne moom lañu doon def ci campagne yi. Mhm. maanaam Khady Sylla est candidate. kon cette violence était prévisible bu ñu fiyewu ci déclaration yu am voilà déclaration préalable mooy Khady si elle est candidate dafa war a dem Anne Maris. ñu fexe xool ba heure boobu diggante fii ak Anne Maris amul beneen liste wala beneen candidat bu fay jaar loolu dana amoindrir un peu les risques yi nga xam ne de violence yi nga xam ne moom la question d'organisation voilà. d'accord question alors doyen euh, Goumbala comme nu ko Pape Sané waxee donc cette violence était prévisible ñu gisee ni te gars oui may ma tuuti madame mais Sagna yow mi nga xam ne observateur averti nga amutoon temps wu wàdd ku fi taaloon këram di accuser Wade te xam nañ ne moo taaloon këram. si si fàtte woon nga ko. fàtte woon yooyu ba tey ces genres d'opération ba tey mi ngi fi. Ah, pour yow kon am na ñoo xam dañuy taal. di euh, laaj ko mi ngi nii am na fi ku fi taaroon un grand responsable ba à à taal këram. Mhm. ba noppi ne j'accuse monsieur Wade or Wade taalut këram. mi ngi nii mujj dégg sax nekk ay xarit ñoom ñaar. ah waaw mu ngoog ba ba Wade woon ko. Mhm. te moo taaloon këram. baat bu saar di yooyu am na fi ah donc lépp lu xew bu dee taal ak yooyu. bu yaboo rek ñu enquête ndax kenn xamut ku taal waaw mais nag am na ñoo xam bu ñu taalee rek ñoom lañ koy jiiñ waaw mais nag nañ enquête ma nag ñoom ñoo taal foofa mais attention loolu laa wax d'accord alors comme ma la waxee dès le début euh, de cet entretien euh, mooy est-ce que cette violence n'était pas prévisible bu ñu gisee gars yi ni ñuy waxtaanee seen biir bu ñuy waxtaan bu ñuy wax sax wala ñu def ay conférence de presse da ngay gis euh, nekkatul ay choses politique mais da gis ne dafa mel ne haine moo dugg ci biir maanaam yëf dafa bees ba que ce soit les autorités sortantes wala mu nekk ñu bees ñi ku nekk dangay xoolee sa morom kenn ennemi mais doo ko xool comme ay acteur politique gentleman agreement bu ñu doon gis ci politique gisatuñ ko depuis 2021 ba léegi xam nga xëccoo bi moo mel noonu bu dee dakaar dakaar moom fii mu ne li carabine affaire bi mooy les prochaines élections municipales xam nga municipalité bi amoon na ay heure bërki démb entre Barthélemy Diaz ak euh, ak Abbas Abbas était le numéro 2 au conseil municipal de Dakar mais ñu génne ko donc Abbas mer na ak ki waa këram ndax ni ñu ko génne du benn yoon donc yooyu yëpp c'est des frustrations dañu revanche am waaw yoo xam ni nit ñi dañ koy yor donc moo tax dakaar c'est un cas particulier sécurité bi sécurité régalienne bu état bi yor Dakar lañ ko gën a war a xoole bu dee àll bi ñëpp ay mbokk lañ par exemple boo demee comme sama dëkk ba Colobane ak couleur politique boo ñëw ñii tëgg ñoo ñii tëggal ñee ñoo lay tëggal ñii toggal ñee ñoo lay toggal ñii lekk eh, lekk ñoo bokk di lekk donc yooyu amut problème c'est dans les grandes villes que ça se manifeste mm-hmm. Kaffrine nag ak Koungheul dafa am un précédent ndax Sonko bi muy def marche boobu bëgg a dugg Koungheul kii waa ji nu mu tuddati l'ancien ministre la nu mu tuddati. Hmm. Ablaye Seydou Sow. Ab Ablaye Sow dane dafa mobiliser woon waa waa Kaffrine ne bu fi jaaree ñu rey ko wala bu fa jaaree danañ ko def nii danañ ko def naa donc yooyu yëpp sonk fàttewu ko yooyu yëpp waa kër Sonko fàttewu donc cette zone boobu moom. problème ak Sonko dafa am mais néanmoins Sonko battre na leen fa présidentielle une défaite sans appel te li ma wóor dana leen fa battre législative bu leen battre législative maire yi ñëw prochainement mu nangu ko nettoyer cette zone la bis bu ko defee c'est là où il y a comme on appelle les écuries d'OGIAS bu ko nettoyer bu boobaa nag dañuy calme d'accord journée démb aussi euh, lu ci bokkoon ci actualité mooy la libération de Bougane Gueye Dany gis nañu tey tamit ki nga xam ne mooy euh, commissaire Keita bàyyi nañ ko est-ce que mënoo ñoo wax ne jamono ji rupture sur le plan judiciaire mi ñuy doon xaar gis nañ ko. donc loolu mooy apaisement. Mhm. Bougane est candidat. donc Bougane ñu bàyyi ko mu def campagne électoral mhm. c'est un verdict de clémence et un verdict d'apaisement. donc loolu. te loolu la soxla sax loolu la lu baax la ñëpp di ko saluer. mais Bougane man xam naa ko personnellement on a de très bonnes relation mais ni ma koy digal engagement politique am na mais ni nga koy defee da koy xam. doo koy reproché. non awma lu ma koy reproché ndax mag la xam na ni muy def mais am na langage boo xam ni bii boo ko defee waa ji tontu la waa ji terrain boo xam ne bii boo ci nekkee xam nga buggaan doon na fi def ak Macky Sall topp tànk. ba moog Macky Sall am na situation bu ñu arrivé woon donc topp tànk yooyu lu euh, wala genre topp tànk da nga koy arrêté léegi nag am nga droit campagne ñu ne la mën ngaa dem fu la neex mbënd am na nga ne yaa ngi dem ñu ne la président fii fi lay jaar que président yor hélicoptère nekk ci kaw wala suuf yépp nee nañ la président daal moo fiy jaar te président sécurité moom ci boppam yoru ko président sécurité mënu ko modifier les forces de l'ordre yëpp sécurité ñoo koy imposer ay itinéraire ak un protocole boo xam ne bi il ne peut pas y déroger jagam loolu am na ñu ne la xaaral une heure de temps xaaral deux heures de temps négal suba même nga nekk suba mais est-ce que mënuñu ko régler le jour J parce que certes lu mu def kenn ñaawlu ko te moom sax il en est conscient mm-hmm. est-ce que jaroñu téyoon ko euh, des jours et des jours pour nag li ma la bëgg wax parce que ah, parce que actualité ak mbirum Bougane doon sur le plan li ma la bëgg a wax gendarmerie si tu te frottes à la gendarmerie ñoom bu ñu demee wax ñoom la ñuy déglu ñoom la ñuy déglu ndax gendarmerie ak les FDS bis bu ñu daanee daanoo république bi daanu moo tax fu ñu dem di wax yow ñu la déglu ñoom la ñuy déglu booy xeex ak benn waay nee na booy am histoire ak gendarme amal histoire ak un gradé. mais gendarme bu ndaw boo amee moom histoire day koy puus ba. non moom force la sax dañ ko dédouané ah. ah. moom dañ ko dañ ko dédouané sax. non lañ ko dédouané refus lañ ko wax ak. xaw ma rébellion ak uh-huh. refus d'obtempérer. Uh-huh. kon na bi lañ dindi am na leneen lu ci des biñ ko condamné. Uh-huh. donc loolu da nga koy éviter Bougane kilifa la il prétend un jour à la présidence de la République. donc am na melokaan bu mu war a am boo Sénégal gi képp ku teeyu daloo mën nga fee sonn politiquement mais Sénégal yi dañ la ragal duñ la jël. mais liberté d'expression aussi fii la nekk. la liberté d'expression n'est pas absolue elle est limitée dans tous les pays du monde liberté d'expression ne veut pas dire lu la neex wax liberté d'expression tax na man ma fii ñu toog ci plateau bi ma wax la lu ma neex waaw ah, aw ma ci droit. ndax liberté d'expression. Mhm. ta liberté s'arrête là où commence celle des autres président daal fu muy jaar da koy. waggar da koy da ngay bu la buñ la nee bu jaar fii taxawal bu suba. d'accord président dem na fee ma xaar suba. d'accord alors euh, Pape Sané la libération de Bouga.